salaamaaleykum mbokk internet GFM point sn tey dañu am mbégte contenté euh, di Pedre Ndiaye président cadre cercle des amis et défenseurs des enfants donc tey occasion la ñu indi ko euh, waxtaan ak moom euh, ci communiqué boobu nga xamante ne moom la génne ci dese bi nga xamante ne moom la taalibe bi taalibe bi génn àdduna maa ngi lay nuyu euh, di nuyu sama euh, internet yi euh, di rafetlu aussi initiative bi ngeen am ci GFM point sn. donc ñu gis ne que yow nekk président wu CAP donc ñu gis benn taalibe boo xamante ni Sëriñ Ñam daf ko doon génn àdduna. Mhm. yow en tant que président nan la gisee. Ah bon d' abord affaire bi nekkul lu bees parce que chaque fois day ñuy gis xale yoo xamante ne. du xale bi moom nañu njëkk rey tax du nekk bu fekkee ne lu ñuy doxalee ni du nekk ku ñuy mujjee tamit rey donc déjà loolu moom il faut ñu xam ko d'abord beneen bi aussi mooy euh, responsabilité parents yi bu ñuy wax parce que tey soo xoolee euh, papay xale bi euh, tey wax na ci benn journal observateur ne moom xale bi da ko doon wax chaque jour moom papa sëriñu daara bi dafay koy dóor donc ba mu ko koy wax à chaque fois papa ji euh, réagirul mais aussi tamit gëmul xale bi donc foofu seen un problème tu sais que xale bi mi ngi doon dund mi ngi doon am loo xam ne mi ngi ko doon souffrir lu mu doon souffrir noonu mi ngi ko doon wax papaam di ko wax parent mi mais parent mi nekkuñu ko gëmuñu ko gëmuñu ko wala dégluwuñu ko wala bàyyiwuñu ko xel mais tey jii ba loolu amee papa ji mi ngi nekk di regretter donc at loolu nag à chaque fois moo tax ñuy wax. parents yi il faut que mu am il faut que mu am loo xamante ne dañuy gëm dañu war a téye xale yi dañu war a am engage jël seeni responsabilité aussi tamit sëriñ daara bi lu mu def déjà loolu du yoon fii ci senegal ci suñuy yoon yi xale kenn waru koo dóor même ci école amuñu droit di dóor xale loolu nag suñ koy wax c'est pas question que ne non dañuy roy tubaab yi dañuy def non non mais dafa am loo nga xamante ne da nga ko du nit kenn du ko dóor mala euh, euh, nit kenn du ko dóor mala sax am na nooy jëf xale du du mala donc il faut que ñun tey jii nii ñu am benn xalaat ne bu ñuy wax naan ay xale xamul xamul yàlla mais xam na yar parce que da nga ko xamal yar essayé ko xamal ko yàlla que lii ko nga naan ay da koy xamal yar parce que dóor fajul dara yuuxu fajul dara te nag suñu société bi loolu daf dafa mel nii dafa bokk ci ñun quoi xale bala nga koy bala mu lay déggal wala ba muy kii rek da koy jël di ko dóor te alors que ne loolu mën nga mën a trouver waat leneen pour xale ñu mën ko def sëriñu daara bi aussi tamit wuru déjà ak affaire daara yi c'est problème yaa ngi koy gis ni lu ñuy lu ñuy dundee ci xale yi xale yaa ngi gis ni yalwaan ak lu ñuy def ba léegi jëlaguñu leçon ci lu xewoon euh, Médina askan bi ba li amagul leçon boo xam ne jël na ko lu xewoon Médina parce que boo gisee xale yu ñu fa jëloon parce bokkoon naa ci ci dispositif yi doon def suivi xale yi euh, ku ci nekk bañ leen yóbbu woon centre Gindi cest que même pas deux jours trois jours xale yi ne dañuy génn centre Gindi bi parce que dañu demoon ay ci ay euh, commerçant ay commerçant yu ñu dénkoon seen yu ñu dénkoon seen xaalis parce que dañuy ñëw verser li sëriñ bi lii ñu dénk ko ay commerçant donc loolu ñoom war nañ mën a comprendre ak yenn rapport yu ñu fi def war nañu état bi war na mën a jël ay responsabilité pour taxaw xeex un mendicité bi mais aussi société civile bi tamit jàppale jàppale état bi ci ci xeex bi parce que bu fekkee ne état kese mooy dem sans la société civile loolu tamit day day wéet ci day wét ci combat bi. waaw fii mesure bi mën a am mooy ni il ñu appliquer la loi. laa xale kenn waru ko yalwaanal xale place am du euh, du du ci mbedd mi xale place am kër kër gën ak école bi maintenant bu fekkee ne nag léegi dañu naan bon mendicité euh, xale yi dañu leen war a dem yóbbu ci affaire daa daara yi dañuy téye xale yi mais auparavant il faut ñu rappeler wu auparavant lu doon xew auparavant c'est pas xale yi dañ doon demee dañ doon am ndeyum daara koo xamante ne parrain la comme genre parrain la woon moo leen doon war moo leen doon jàppale maintenant bu fekkee ne yéen mesures yu ñu war a jël application de la loi mais aussi kilifa kilifa diine nga chef religieux taxaw wax ne xale yi li ñu leen def du du loolu moo xew daara kokki du loolu moo xew daara Touba mais aussi du loolu moo xew daara euh, loolu exploitation des enfants exploitation des enfants la du nekkul loo xamante ne euh, euh, lu lu baax la donc loolu dañ ko war a dañ ko war a dindi parce que xale yi agresseurs yi ëllëg yeeg yow ñëpp ci ñii na ñuy dem parce que xaalis rek nañ leen di tàmmal te suñ ko gisatul dañuy dem euh, dañuy dem dañuy dem sàcc ci walla ñu dem def leneen donc il faut pas que mesure bu ñu war a mën a jël dañu war a appliquer la loi maintenant nag c'est pas bu ñu waree ñëw jël pour appliquer appliquer loi bi du ñu du jug jikki rek ñu daan ñëw génnee xale yi il faut mu am les centres d'accueil fii ci Sénégal centre d'accueil c'est un problème. à part centre Guindi yi am mënuñu la fi konteel di centre d'accueil aussi les parent war nañ mën a jël tamit seen responsabilité ak les sëriñu daara parce que am na loo xam ne responsabilité la xale soo ko mënul yor yow sëriñu daara bi amoo droit kenn daal di ñëw jox la doomam te yow mënoo koo dundal nga koy téye parent bi aussi tamit warul jël pour débarrasser wu doomam rek yóbbu ko ci yóbbu ko ci sëriñ daara donc ça c' est un problème te loolu je pense que war nañ mën a xool lan nañ ci mën a taxawee donc il faut trois parties ku muy état que muy famille bi que muy sëriñu daara bi def loo mënul bul ko taxawal def te ñoom bu fekkee ne dañuy woote ci diine beeg yooyu euh, bis euh, ëllëg ku ci nekk dafa am loo xam ne dañu la koy laaj noo doon sàmmee lañ lañ la joxoon

gis nga ba moo tax ma ne ñun amuñu c'est-à-dire que du ñuy am leçon ci yenn mbir yi gis ba ñu dóoree xale yi euh, xale yi ñu jëloon euh, Médina ba ñu lakkee sat xale ñàkk ci seen bakken dañ ñëpp wax nañ président dem na déplacé wu ba dem foofu premier ministre déplacé wu na fa c'est-à-dire que muy rajo yi muy kii presse bi yëpp wax nañ ci affaire boobu donc léegi lan moo tax muy agir maintenant nag Sénégal boo fi nekkee ne da ngay agir bu ñëwee dañuy wax ci waxu daara yi. est-ce bi c'est problème mais aussi tamit la société civile man vraiment ci laa bokk mais ñenn ñi ñun kese mënuñoo def li mënuñu mënuñu dem benn loxo benn lam du yëngu mais société civile bi ñoo war a accompagner état bi cest à que société civile bi jouewul rôle lu mu ko waree woon jouer c'est-à-dire dañuy wax nii rek mais bu ñu ñu yëngalee ne dañuy arrêté. dañuy éradiqué les daara ak les mandicipés ñeneen ñi tëb fee na dañuy xeex lislaam ñeneen nii bu ñu nee dañuy réglementer daara yi dañuy réglementer ñeneen ñu ne xeex nañu lislaam alors que débat bi du foofu dañ koy orienter débat bi mooy kenn warul jël xale di ko exploiter kenn warul jël xale di ci wutee xaalis donc loolu nag if sensibilisation boobu ñun ñu ngi koy def parce que ñun option bi ñu jël mooy dañuy veiller et d'alerter grave euh, cadre loolu mooy option veiller d' alerter donc ñun à chaque fois saa yu ñu bëggee dañuy wax ne il faut que tey jii ñu lu ñu gëm mooy société civile bi accompagner état bi ci yenn démarche yu muy def mais bu saa yu ñu jëlee kii doo gis dégg dara ci société civile bi moom laa doon wax sànq sama communique que ñu ni dem day séminaire di dépenser ay millions cravate fi te alors que loolu dañ ko war a dépasser léegi. y a plusieurs fois que gars yi ñuy def ay résolution yenn affaires yi alors que loolu il faut gars yi dépasser ko pour mën a taxaw actuellement phase sensibilisation ak yooyu jeex na phase agir loolu la ñuy xaar ci autorité waaw xam nga état moom euh, rôle am dëggantaan mooy moom moo yor loi bi que ne tey jii ne lii kat ku def lii ñu def la lii. ku daal di ku jàdd yoon ñu delloo si la laaj yoon mu ñu mel ni sàcc bi donc konte nag moom moo yor yoon beeg yooyu yëpp dañu war a agir naam sax nekk na la nga xamante ne euh, yombul parce que li ma la doon wax sànq fii Sénégal boo waxee ci affaire mendicité ak yooyu rek ñu ni da ngay xeex l'islam te alors que ne du foofu exploitation xale yi la mais léegi nag des fois nag approche bi ñuy jël moo dul yomb approche bu ñu jël def bu ñu dul jël moo dul baax parce que il faut que ñu associer ci yenn affaire et direction des droits boo xamante ne moo yor affaire politique bi te nekk ci au niveau ministère de la famille moom tamit dafa war a associer euh, la société civile ak yeneen tey jii gis nga am na ay experts yu fi nekk yu jógee euh, des droits euh, kii au niveau chambre africain des droits de l'enfant ñu ni fi mais ñooñu tey jii ñu ñëw yem ci lii xale bu ñu rey ça c'est un c'est un problème donc état moom c'est vrai que ne dafa war a appliquer la loi loolu la ñuy xaar ci moom mais aussi tamit mu encadrer ko ñaam ay centre d'accueil xool nan la mën a jëlee xale yi nekk ci mbedd mi ñu euh, xool fan nañ leen di def. pour ñu dindi fili déjà il faut que ñu def les daara moderne parce que euh, te jaakaar naa ne état baa ngi ci honnêtement pour wax dëgg état bi mi ñu ci ñu ngi wax ci ay daara moderne bi ñu ngi koy def mais en ce moment lan mooy privilège cest à que actuellement lan mooy du concret mooy sëriñu daara yi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité. des fois à chaque fois nag ñun dañuy naan société civile boo nee mu ngi état la ñëpp dañu naan état la d'accord mais il faut exploité xale yeeg ñoo nee ne du ñu ay faux sëriñu daara nañ toog jël ay responsabilité ne waruñtuñu xale yi heure bi nañu war a day dem dem ñi yalwaane ji te bu ñuy yalwaan c'est pas ngay dem di wuti xaalis mais daay dem wut loo lekk mais waruñu di yalwaan loo xale yi te le état bi sëriñ daara yi war nañu am seen responsabilité parent yi aussi war nañ jël seen responsabilité parce que bu fekkee ne yow mënoo yor sa doom jarul kon ngay ngay naan ne dangay am ay doom après daal di jàllax ko la plupart dañuy dàq dañuy dàq seen responsabilité. bo donc euh, bu ñu jógee euh, man personnellement gëwuma gala de l'enfant. Euh, du priorité bi actuellement am na ñu naan la SNP SNPE. stratégie nationale pour la protection de l'enfant loolu mën yaakaar naa ne moo war a nekk priorité priorité bu njëkk xool financement bi fan lay jógee ak ci lan lan lañ koy def et loolu moo may merloo ci affaire ci la société civile yu nekk ci affaire pro cest à que ñoom ci ay séminaire ci ay gala yooyu rek nga leen di gis parce que gala de l'enfant bi gala de l'enfant bu ñuy wax ni amul importance su ñuy wax ne pour après finalité bi pour dajale des fonds wala pour def nii ak nii non ça n'a pas de sens parce que bu fekkee ne loolu la parlement des enfants bu ñuy wax mel ñu ni gars yi kan renouvelé wu ko euh, te ci Afrique bi yëpp Afrique au niveau de l' de l'Ouest ci Sénégal nañ copier le parlement des enfants te euh, au niveau de l' de l'Ouest pays yi ñu nekk ak yëpp ku ci nekk am na le parlement des enfants te ci Sénégal nga ko gisee Sénégal amagul parlement des enfants parce que faute de budget la bu fekkee ne tey dañuy naan dañuy dem defi ay gala de man gëm naa ne képp ku ci ne da nga ci war a ci bëgg a bokk wala yeneen da ngay cest à amoo gëm nekkoo militant des enfants li nga gëm mooy euh, benn xawaare et aussi xoolal cadre bu ñu ne dañ ko koy defee dañuy dem ay grand théâtre je pense que ne ñun wër nañu dépasser la wër nañu wër nañ dépasser yooyu dem ci benn wër nañ dépasser loolu nekk ci benn priorité mooy lan la ñuy def pour financer la SNPE la stratégie nationale pour la protection de l' enfant lan la ñuy def pour financer le parlement des enfants je pense que ne loolu mooy pro loolu mooy actuellement euh, priorité majeure yu am parce que gala de l' enfant comme le fait des enfants et que le fait des enfants boobu cap mu ñu koy gérer donc moi je pense que ne au niveau du ministère de la famille la direction war nañ mën a taxaw pour que vraiment euh, mu am beneen ñu am beneen priorité que di def ay ay gala de l'enfant wax yooyu. pour euh, dajale xale yi ñu bëyee dàq seen loolu d'accord. non c'est pas parce que soo waxee que amul importance je dire am na leneen fi ëpp. waaw euh, xam nga xale dafa am àq ak yelleef xam nga yaa ngi naan la la convention des droits de l'enfant CDE. ci lu nekk dafa am droit au loisir droit à l'information xale dafa am àq ak yelleefam d'accord naa ne xale war na mën a dem foo wala yeneen ak yeneen mais bu ñuy jël xale di ko di ko di ko meublé def ko benn décor bu boobaa dama lay dama lay wax la ne loo gis xale yi ñu leen ji ñoom seen bopp ñoom ñu jël gàllaa bi mais boo xoolee mag ñee fay ëpp soo xoolee euh, dañ leen ji ñoom exploitation la sax laa ko tuddee parce que fonds yooyu après ñoom lan lay servir après ñoom ñoo koy demee dans les si séminaires yi lu gën a priorité mooy le parlement des enfants parce que loolu mooy wane parlement des enfants tribune la boo xamante ne xale yi. dinañ dinañ bon ah, dëgg la xaalis ñoom priorité bu njëkk wax nañ ko xaalis la finalité bi dañuy bëgg a am xaalis pour financer benn def benn fonds de l'enfant mais fonds de l'enfant bu ñu nee dañ koy def kan moo koy financer. ay UNICEF la Save the Children wala yeneen mais ñooñu nañ toog def benn table ronde xool bailleur bu nekk ne man indi naa lii indi lii indi naa lii après ñoom ñu doogu mën a taxaw dem defi ji daay dem daay jël xa euh, collecté loolu daay dem def defar la parlement des enfants mais dem naan ay dañuy dem jël xale di leen jóobu ci beneen cadre te du seen cadre loolu c'est un c'est un problème dañuy dañuy divertir loolu rek. sama dernier moom mooy euh, d'abord remercier leen ci opportunité bi ngeen ma bi ngeen ma jox mais aussi euh, dina vraiment il faut que responsabilité bu njëkk pour man parents yi bi la parent bi moom moo war a jël doomam sàmmal ko boppam parce que dem ba sa doom génn àdduna ngay am ay regret te aussi il faut que ñuy gëm xale yi Sénégal nag dañu am un problème xale bu waxee rek ñu ngi day fen gëm du ñu gëm cest à problème boobu nañ ñu am. parce que dañu am culture boo xamante dañuy wax xale du nattali. wa non c'est pas c'est que nag loolu c'est un problème moom laa leen ne problème boobu il faut que ñun loolu ñu xeex koog suñu bopp il faut que ñuy déglu xale yi il faut que ñuy gëm xale yi dañ leen di wër di déglu dañ leen di wër di gëm da ko war a xale da ko war a jàppee sa nawle tant que nawloo tawoo sa doom am na yenn yoo xamante ne à chaque fois da gis nit ñi di def nii seen di def dara seeni kanamu doom. sans ñu rendre ko compte alors ko xale bi mu ngi mi ngi xool mi ngi copier mi ngi capté donc lu njëkk mooy que nañuy déglu xale yi parce que aman pour man lépp lu am dañ ci war a attirer leçon et que leçon bii nii nii tey parent bi parent wu Dame Dieng lu mu wax ni tey vraiment man dama choqué parce que xale bi te bàyyiwuñu xale yi bàyyiwuñu xale yi xel dégluwuñu xale yi et na loolu nag il loolu moom gars yi génne ko man sama moo bu mujj loolu la. internet euh, GFM point sn ñoo ngi nekkoon nag euh, ki nga xamante ni euh, moo di Père Ndiaye.